daanaka mun nañ ne ñi nga xam ne ñoo di kujje gi saa su ne dañuy faral di def leen li nga xam ni sart ndey réew mi moo ñu ko may ci ay manifestation wala ci leen li nga xam ni jamono gii dañ koy taal di taxawal te loolee mun nañ ne sax ñi nga xam ni ñoo di F24 du ñu taay du sonn mukk ci saa su ne di jiima dugal leen li nga xam ni moo di pour am manifestation ci manifestation mu war a nekk li nga xam ni charte ndey réew mi dafa wax ni da ngay yëglu dangay ngay yëglu waaye kat saa su ne ñoom nii buñ koy def dinañ yëglu waaye kat moom préfet ba fii nekk di wuyoo turu Mor Talla tin nekk na ki nga xam ni saa su ne bu ko jigi defee ab manifestation jëmale ko ca moom moom day daal di bañ ba tëdd ca naaj ba indi lenn ñaari charte yi nga xam ni saa su ne moom lay teg si seen ndodd ñaari charte yooyu nekk menace de mort entrave à la liberté circulation des personnes et des biens loolay nekk mbir bi nga xam ni saa su ne F24 daal di taxawalaat wootewaat li nga xam ni moo yemoo rassemblement bi nga xam ni moom mii di F24 daal di na ko war a def vendredi le 8 septembre 2023 à la place de la nation ak lu yem ci quinze heures trois heures ci àjjuma bii ñu jëm waaye kat daanaka mun nañ ne li nga xam ni moo di Mor Talla moom préfet bii di faraw fi ca Dakar ne tey jii mun nañ ne nguuru Macky Sall bi nekk na nguur gi nga xam ni bëri na lool li nga xam ni tere na manifestation te boo waxee saa su ne dafay naa mii nga xam ni tey jii dañu am li nga xam dañ koy tiitaanga ci lenn ci li nga xam ni moo di wóoluwul ñu ngir kat ak am militaire yu doy wala takk der yu doy yi nga xam ni mun nañu couvrir boobu les manifestation wala kat dañ am tiitaange ci li nga xam ni ñoo di dem mbég dikk bi wala kat leen li nga xam ni ay moomile askan bi la ca loolee moom mi nga xam ni moo di Mortalla Tine saa su ne dañuy gis ni ci yooyu la mbir la daal di ba tax sax moom muy arte lenn ci li nga xam ne ñoo di kujje gi ñooy sàkku saa su ay manifestation di ko amal ci lenn li nga xam ni moo di 46 département yi ñu faroo wala sax ci lenn li nga xam ni moo di Ndakaaru Njaay bi la ñi gis ni saa su ne ñi nga xam ne ñoo di kujje gi di opposition bi la taayuñu benn yoon di saa su ne di li nga def li nga xam ni moo di constitution moo leen ko may di sartu ndey réew mi la te loolee sax tax na moo waral ñu daal di dugalaat beneen rassemblement waat di woote ngir kat ñëpp daal di leen wuyu si ci àjjuma dinañu xool naka la waanent di mujjee ak i gëtam ndax kat mortalatin dafay wecc waat saa su ne di terewaat wala kat bi paat dina joxe lool ndigal bi nga kat couvrir bu baax a baax yi la manifestation te loolee dañuy gis ni saa su moom mortalatin préfet bi la saa su tere leen li nga xam ni moo waral lu mel nangul ah, d'accord ko baax baax parce moom mi ko tere moo xam li tax mu tere ko waaye kat dañuy gis ni ay procès Ousmane Sonko wala ñeneen ñi bu amee li génn ci takk der kenn du xam lu mu toll looloo sax dañuy gis ni ba léegi sax saa su te Dakar Ndiaye gi lee am na fu muy toll dañuy gis takk der yi dañuy génn bu baax a baax ana kon la moo waral yile takk der saa su ne ñu dem di manifestation yi am ñu leen di couvrir bu baax a baax su ko jéggi di wootee waaye ca loolee mën nañ ne moom préfet bu Dakar day sukkandiku ci li nga xam ni moo di menace de mort entrave à la libre circulation des personnes et des biens nag daa di daa di sukkandiku ci ay li nga xam ni moo di code pénal yi suñu réew mi la moo ko may ca loolee daa di ne vu le code pénal notamment en en ses articles 92 à 100 daa di waxaat vu à la loi numéro 112-02 du 1er février 1972 relative à l'organisation de l'administration territoriale modifiée vu à la loi numéro tire 118-02 du 29 janvier 1978 relative aux réunions vu le décret numéro 72 tire 636 du 29 mai 1972 portant son des chefs de circonscription de, du préfet du département de Dakar vit la, vit la à la préfecture de Dakar moom loolu la daal di xam léeg-léeg ëpp lu muy sukkandiku daal di xam ni nag moom mii préfet bi Dakar gis na li nga xam ni moo di lettre bi ñi ñenn ci ku jegi di dugal ci yëglu moom mi nga xam ni moo di préfet bu Dakar waaye nag saa su paree lu mu ciy daal di tegaat mooy kat mi mbir duñ ko mën a nangu duñu mën a accepter li nga xam ni moom la ku jegi di sàkku saa su ne ndax kat ku jegi dafay sàkku jooy ñaxtu suñ saa su ne fu ñu toll ndax kat jooy yooyu la dañuy gis ni lenn ci mim réew di Sénégal gi mën nañ ne opposition dafa war a am solo loolu ci ab réew ba tax na F24 daal di dajale kuréel yu bëri tënku ci ngir kat mun a jàkkaarloo président bi fi di président Macky Sall ndax kat loolee dafay baax ci ab réew ñu am li nga xam ni moo di kujje waaye kat gis nañu bu baax a baax moom mi nga xam ni moo di président Macky Sall di ñaan yàlla yàlla defal ko jàmm bu baax a baax ba at mu toog fi ci jàmm ak salaam ba atum 2024 ki gën ñëw wóotu ko ci jàmm ak salaam Sénégal daal di comme continuer ni ñu xamee woon waaye ca loolee dañuy gis ni saa su moom mi nga xam ne moo président bi li nga xam xam ni ñoom la fal saa su ne rawat na moom préfet bi le day sàkkus na ko ci li article yi nga xam ni moom lañ leen waxal fii tey jii le liira leen ko ci Buzz Actu 221 ci yooyee lay sukkus na ko daal di mën a fexe la tout bu baax ba tëdd ca naaj ba ci li nga xam ni moo di ay article xam ni kat lii kat moo moo tax du mën a nangu loolee tax daal di teg ci ndodd ñi nga xam ni moo di ñaari article li nga xam ni ñi nga xam ni saa su ne ku jege miin nañ ko loolu su ñuy def li nga xam ni moo di manifestation te manifestation ginnaaw li nga xam ni sart ndey sart réew mi moo ñu ko may waaye loole dañu gis ni moom mi kat di préfet bi le di Mortalla Tine ginnaaw boobu ba léegi mën nañ ne bëri na lool li nga xam ni ci ay manifestation du ko nangul benn yoon ku jëgi ndax kat dafay jël ñaari charte yi nga xam ni saa su ne moom lay teg seen ndodd lool muy menace de mort ak li nga xam ni maanaam menace de mort du xupp ak jëmale ko ci askan bi la wala en à la libre maanaam à la libre circulation des personne et des biens maanaam day nekk li nga xam ni dafay tënk bu baax a baax ci li nga xam ni moo di dem beeg dikk bi jëmale ko ci leen li nga xam ni ñoo di nit ñi askan bi wala seen i moomeel ci loole moom mi nga xam ni tey jii moo di askanu Sénégal gi la nekk mbir mi nga xam ni bëri nañu bëri ñi nga xam ni dañaa faral ci kujje gi dañuy joytu bu baax naan kat gis nañu bi nga xam ni moo di manifestation suñu sart nday réew maye ko gis saa su ne préfet bi fii dafay arrêté ak di di sëkkasnuku ci li nga xam ni dafay bëgg di naqal ki nga xam ni moo di président de la république ngir kat saa su ne moom mile muy mun a di continuer li nga xam lay def te sans autant que suñu mu ne yoon moo doxal yoon moo joxe li nga xam ni moom mënu ci dara waaye nag dañuy gis ni tey jii moom mi xam ni ñoo di F24 nekk ay yi nga xam ni dañaa làmboo lenn ci ay ñi nga xam ni saa su ne ñoom dimanche 25 février atum 2024 gi la bëgg nañ nekk mim réew di Sénégal ay F24 rassembler société civile rassembler lu bëri bëri ci ñoom ñi le waaye kat nekk benn kuréel bi ñu tuddee seen bopp F24 mu nekk mbir bi nga xam ni saa sune ñoom ñi le lenn saa bi ñu dugalee wala kat ñenn ci kujje gi dugal moom mi le di préfet bi le di Mortal Tine dafay bañ ba tëdd ci naaj ba yaakaar nañ ajjuma bii di ñëw nag loole la war a tëralaat moom mi nga xam ni moo di F24 daal di bu baax a baax tombé le 8 septembre 2023 ci tàkku ci tisbaar foofee ca place de la nation dinañ xool bu baax a baax moom préfet bi naka lay doxalee ndax kat ginnaaw préfet saa su dekkee daal di xamle lii ba pare du fa yem moom mi nga xam ni moo di ministre de l' intérieur di ministre Antoine Félix Diome wala ki nga xam ni tey jii moo di gouverneur ñoom ñëpp tamit dañuy sukkandiku ci loolu xamle bu baax baax surtout gouverneur daal di xamle ne amuñu benn li nga xam ni moo di dem dikk bi ci wàllum mbëtt deux ak quatre roues yi la ñoon le wala ñett roues yi bu ñu daw benn yoon jusqu'à heure sangam ba heure sangam mu nekk mbir bi nga xam ne saa sune ne koo xam ne daal liggéey yor wala li mën nañ ne boobaa doo mujjee dem wala da ngay jël ak mu nekk benn mbir bi nga xam ne xupp gi nga xam ne saa su ne dañ koy gis ci mim réew te loolee mën na nekk mbir bi nga xam ne ku nekk war na ko am sàkku dem bég dikk bi mu yomb lool waaye tamit ku nekk am saa sune boo amee lu la métti sa réew nga ñaxtu ko comme Abdoulaye Wade président de la république bu fee woon daan na def saa su ne mën nañ ne ajjuma bu nekk foofee ci place de la nation dina am li nga xam ne moo di manifestation waaye nag nguur gi bu fi président Macky Sall mën nañ ne nguuram bokk na ci nguur gi nga xam ni moom mi le nekk na nguur gi nga xam ni lu ñu tere manifestation bëri na loolee waaye nag dañu xam naka la waanenti di mujj ak gëtam ndax kat taay ñuwu taayi wuñu benn yoon ñi nga xam ni ñoom ñooy waa kujje gi rawat na kuréel gii di F24 ñoom ñi le ginnaaw bi nga xam ne yàggul dara lañ leen bañal rassemblement boobule di ngir kat ñu ñaxtu lu leen metti ci mim réew moom mën nañ ne dugalaat nañ beneen beneen rencontre waat encore dinañu xool naka la wàndeenti di mujjee ak gëtam mu nekk mbir bi nga xam ni saa su ne bëri na ñu bëri ñi nga xam ni dañoo faroo ci wàllum loi dañ naan kat saa su ne état bi fi wala kat jaay doole bi nga xam ni leen ci nguur gi ñu ngi leen koy def te loole dafay nekk mbir bi nga xam ni lu leen di jaaxal la waaye kat dina nekk loo xam ni moom dina nekk mbir bi nga xam ni saa su ne daf leen di nekk loo xam ni da leen di jaaxal loolu waaye kat nekk li nga xam ni lu leen di të ak lu leen di métti lool la ndax kat jaay doole kase lañ daal di gis si ñoom ndax kat li nga xam ni moo di ak ak yelef aadama suñ ko demee ba salfaañoo amuñu leneen li nga xam ni moom la ñu mën a teg lu dul jaay doole waaye nag lu mën a am ba am dañuy ñaan mim réew di Sénégal yàlla def fi jàmm ak salaam ndax loolu rek moo fi xaj Sénégal pays de la Teranga la Sénégal pays démocrate la Sénégal pays li nga xam ni ñëpp xamee noonu lu baax a baax ndax Seexul Xadim Seydi Hadj Maïs Mame Bou Kounta Ndiassane Seydina programme jàngu bi ñëpp loolu la ñu xamee woon ndax kat ba tax na ñu tëj ñu tuddee ñu pays de la ñu pays démocrate tey jile loolee dañ sàmboo ba bu naxasaay mukk ngir kat dimanche vingt cinq février ki ñu yaakaar ne moo gën ca Sénégal te war ko defar bu dikkee mu defar ko ci at bi nga xam ni mu defar ko ci li nga xam ni noonu la ko Sénégal gi daal di bëggee asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu bu fàtte abonné aimé partagé ndax kat loolu dina nekk li nga xam ni luñ daal di la